wali man wali man min baynina min baynina nasabu nasabu min jihati tiini min jihati tiini aw fi diini aw fi diini wallahi soo ko firee wallahi soo ko firee te dégg ko te dégg ko da nga xam ne da nga xam ne la mu waxoon mooy dëgg la mu waxoon rek dëgg dañu maa jur ñëpp dañu maa jur ñëpp juruma kenn juruma kenn ku teg sa tànk ci sunna ku teg sa tànk ci sunna di noyyee Seex na Ahmad Tijaan. di noyyee Seex na Tijaan Sërif radiyallaahu taala anhu. maa ngi ku nekk ci leneen. ku nekk ci leneen nag. suñu mën a askanalee. suñu mën a askanalee it. jotuwuma ak yow dara jotuwuma ak yow dara. sang si sang bi si saawaale. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar. te Maodo ma jur. te Maodo ma jur. maa nga sant si. maa nga sant si. maa nga laaj. maa nga laaj. ku mu doyul ku mu doyul. ku rayoon ab xabban. ku rayoon jox la jox la doo suur ne bokk yi. waaw nee ma tey tey tey tey ñu mel ne leen mbaal ci laa ma yàlla baaxee ba ñëw fekk la fii lu wax lii damay dëgg sa wax ci li nga wax. noo ngi ñaan ci yàlla. ah euh, sëñ Thiat nee na ñoo ngi ñaan ci yàlla. ci barke nee na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ku fi ñëw. képp ku fi ñëw. te am nañ ci yaqin bu wér. nee na te it am nañ ci yaqin bu wér. incha allah. incha allahu taala. sama baay. nee na baayam. sëñ Basiru. sëñ Basiru Amar. Maodo ko tudd. nee na maam Cheikh Siraaji Malick moo ko tudd. tuddee ko Mouhamadul Bachir. nee na tuddee ko Mouhamadul Bachir. daana ma wax. nee na baayam daana ko wax ni ko. dëkk bii dëkk bii. ku yàlla narul faj sa aajo. nee na ku yàlla narut faj sa aajo. naru yërëm ëllëg. naru yërëm ëllëg. doo fi ñëw doo fi ñëw. Maodo. nee na maa sax si rajo Malick. fekkan na fi nit. nee na fekkoon na aw nit. waaye nit sama baay da daa wax. nee daf daan wax. booba simi lanu. nee booba simi lanu. similoor. similoor. weñ gu ñuul ko ëpp daraja. nee na similoor. weñ gu ñuul ko ëpp daraja. waaye bi Maodo ñëwee. waaye bi ma sax si laaj Malick ñëwee. alhamdulilahi alamin nee lanu. nee na lanu. képp kuy askanoo ci Maodo. nee na képp kuy askanoo ci maam sax si boo ko yëgee. boo ko yëgee. ak soo ko yëgul. ak yii may bëgg a wax. yii may bëgg a wax. billahi moo la billaahi moo la war. nee billaahi moo la war. jub moo la war. nee na jub moo la war. xam ngeen juba. nee na xam ngeen juba. loo moomul ba ko fa. loo moomul bàyyi ko fa. lu la wóorul bu ko wax. lu la wóorul bu ko wax. loo mënul bu ko jéem. loo mënul bu ko jéem. xel mi day baaxatul. nee na xel mi day am xelam day xel mi day baaxatul. baal leen ma. nee na baal leen ma. damay jaxase rek. nee damay jaxase rek. ana bu ca anna bu ca topp. mu ne ana bu ca topp. kuy askanoo ci ci Maodo sax di laaj Mali. waaw bisimilah bisimilah. sëñ bi dugg si kuy askanoo ci ci Maodo sax di laaj kooku du maam maam maam waaw waaw Samba Sall waaw Mama Sall waaw waaw mu ne kuy askanu ci mag si raaj Malick waaw waaw incha allah moom itam tabaski foofu ko fàtte xam nga lu nu fa jëlee. nee xam nga lu nu fa jëlee. booba jàjji. ah booba jàjji. kër Linguère bi. nee na booba jàjji kër Linguère bi. kër Linguère bi. nee na booba jàjji kër Linguère la. bu jant soo. bu jant soo. tund wi yëpp. tund wi yëpp. kuy nitu adduna. kuy nitu adduna. dañuy daje. dañuy daje. di naanoo. di naanoo. ak a tagwante. ak a tagwante. ba bët set. ba bët set. ku ne nelaw. ku ne nelaw. maam paate kot. nee na maam paate kot. mi sañcoon dëkk bi. mi sañcoon dëkk bi. te bokk ak ñoom nday ak baay. te bokk ak ñoom nday ak baay. muy diine Maymuna. muy diine Maymuna. ma gumba Maymuna. ma gumba Maymuna. ak diine may ak diine Maymuna. ak paate. ak paate. ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ak baay. paate mii. paate mii. leer nga topp ko. leer nga topp ko. ñee ànd ak ceddo yeeg waa aduna. ñee ànd ak ceddo yeeg waa aduna. mu taal daara. mu taal daara. boobu moom kot. boobu moom kot. tund wii. tund moo fi taal daara. moo fi taal daara. suñu daan jàng. suñu daan jàng. dañuy ñëw ne ko. dañuy ñëw ne ko. wax nu li ngay xul. wax nu li xul. ndax mbokkum dameel nga. ndax mbokkum dameel nga. muñ leen man xuluma di alxuraan lay jàng. mais muñ leen man xuluma di alxuraan lay jàng. ñu ne ko luy alxuraan. ñu mu ne wax yàlla mu ne wax yàlla. la mu ne. mu ne. fii du dëkkuwaay. fii du dëkkuwaay. fii de du dëkkuwaay. ñëw gentu njaar. ñëw gentu njaar. rijaarullahi. rijaarullahi. rijaarullahi. na dëkk na dëkk ak yàlla. na dëkk ak nan dëkk ak yàlla man mënuma damay toog. nan dëkk ak yàlla. xam ngeen lu nu fi indee. mu ne xam ngeen lu nu fi indee. lu nu rawalee sunu diine. lu nu rawalee sunu diine. sàmm fa sunu njaboot. sàmm fa sunu njaboot. sàmm fa sunu ngor. alhamdulilahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salaamu ala asrafi xalqihi sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu an ibn maktuli albarsaq muhammadi almaaruf taaju alaarifina wa mumidi alawliya المستحق المنادى بعذرة الغيث بأحمد البرزق الذي يتلقى ما يرد من الأنبياء يوسعه على الأولياء سيدي أحمد بن محمد التجاني وبجميع أصحابه وخلفائه وحماته من الجن والإنس أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ñu leen ziara di am mbégte kontaan lool ci ñëw ci barab boo xam ne sunu maam Seydi Hadji Malick ay tànkam dox na fi ay kàngam jib na fi kon bu ñu yàlla baaxee bu ñu ñëw fi rek dañu wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu fexe rek bala ñuy dem ñu ngi fi doog lu ñu mën a am ci yéene rek bëgg-bëgg ñu ñaanu fi ndax jàpp nañ ne ku fi ñaan yàlla dina ko nangu xam naa kàddu gi du mën gudd ndax ñaari ñëf bi ci jënk mooy ki nga xam ne mooy borom bërëb bi ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ñooñu la fekkoon ñu nekk ay borom xam-xam nekk ay jaamukatu yàlla ñooñu ko ñëwee seen kanam di wax dana xaw a jafe loolu moo tax ne li ñu wax rek mooy ay nitu sunna dëgg lañ sànq rek bi ñu ñëw ci bi maa koy wax sunu mbokk Medoune Niass ci yoon bi ma ne ko distance bu yaatu gudd bii àll bu yaatu bii ku yàlla saxul rek doo fa dem nga génn àll yi nga xam ne moo gën a mën gën a neex nga ñëw ba fii nga commencé di fi liggéeyal yàlla kooku bu duguloon caxte bu mu ñëw ci yàlla du fi ñëw moo tax bu ñuy wax am ñu bugg a askanale seen bopp ahlu sunna damay wax ni li ñu xam ci sunna bu fekkul ñoom ñooy ahlu sunna mën naa wax ne alal wajhil ardi amul kenn ku mu nekk ahlu sunna wa jamaa ñu bëri dinañuy jéem a jam nit ñi ay flèche wala ay kàddu ci ne ñoom ñooy ahlu sunna ñun ñi bokk ci ak suufiya ñun ñooy ahlul bidaati te dama ni waxuma ñi sos ki sos tariqa bi waaye ay taalibeem rek di ko dalee ci Muhammadul Ghali di wàcc ba ñëw ci ñi nga xam ne ñoo yor turaasa bi moment bi ñu toll nii ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñooy ahlu sunna wal te danaa ci joxe ay firnde d'abord il faut ñu xam sunna boobu ñuy woote mooy lan ndax bu ñu ne sunna ci li ñu gis mooy benn mu nekk loo xam ne yonent bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam am ku ko def ci kanamam te won ko dara loolu mën nañ ci gàttal loolu mooy sunna waaye nag bu fekkee am na ñu ñëw wax ni lépp lu yonent bi deful rek bidaa la dañ koo sos xool nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund ay saxaabaa ngi ci kanamam di def loo xam ne moom waxu leen ne def leen te dem nañ ci cité rek ay yéen xool nga te loolu dem nañ ba sunna la léegi mooy boo jàppee ba noppi nga def ñaari rakkaa loolu yonent bi mën nañu wax ne xamuloon ko daaw ko def mais bi lay ndur a baax bi yonent bi defee isra wal mi'raj nee na bi ma visité aljanna nee na mu dégg tànk bilaal yi ci biir aljanna mu jiitu ko ne bi mu ñëwee li mu njëkk a wax bilaal mu ne bilaal bi ma sabaxtana yaa bilaal ci lan nga def ba jiitu ñu biir aljanna bilaal ibnu Rabaah ne ci xalaatam bi mooy mosuma sama njàpp mosula toj te ko te bu ma ko yeesalee ba noppi danaa def yonent bi ne ko nag looloo tax nga jiitu ñu àjjana ndeke kon Bilaal mu ngi doon def loo xam ne yonent bi daaw ko def ndax ku ko doon def du ko ko te loolu nag léegi ñu koy def boo jàppee ba noppi nga def ñaari rakaa bu fekkee moment la boo xam ne mën nañ ko naafila nga def ko muy sunna kon bul wax ne lu yonent bi defu doon keneen ku ko fi def rek nga tuddee ko bidaa beneen bi ci des mooy saxaaba yi tul kiram dem nañ tukki am benn bii boo xam ne mooy jiite moment bi muy jiite julli yëpp qul huwallahu ahad lay jàng bi gaa yi ñëwee ne yonent bi sa def na loo xam ne ñun mësuñ koo gis nga def ko mu ne mooy lan mu ne li ñu ànd moom yëpp mooy jiite julli te li muy jàng yëpp mooy qul huwallahu ahad mu ne leen laaj leen ko lu tax def ko mu ne nag mu ne leen nag qul wallahu sifatullah tey tamit dama ko sopp nag li mu nekk sifatullah mu dama sopp yonent bi ne leen dem leen ngeen wax waa jooju ne ni mu ni mu soppee saa noonu la ko yàlla soppee kon saxaab bi boobu mu ngi def loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam daawul defee noonu kon li mu bëgg a wax rek mooy bu fekkee ne yow da ñëw am lu bees te man loolu loolu laa gëm te moo sunu mag ñi bu fekkee ne duur ne ñoom ñooy am sunna moo laa wax ne amul kenn ku am sunna lu tax mooy lépp ci xam-xam Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu li mu wax borom il faut que nga xamante ni ko nekk mooy dafa waxoon bu ngeen déggatee ci man lu wax dara mu ne na ngeen ko natt ci balaasu sharia yaani al kitaab wa sunna bu fekkee dëppoo la ngeen bu fekkee dëppoo la sunna ngeen bàyyi ko ma am benn site boo xam ni ay borom xam-xam rek a ci jiitu xam-xam bi nga xam ne moom laay cité mooy nee moom li tax mu jël wéru Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane yi borom xam-xam la boo xam ne dana waaye dafa toog rek boo gis benn bind li mu Cheikh Ahmad Tidiane waxoon ne isa samitum min shay'an shay'an fa zinu bi masdari shari'i mu ne bi mu gisee nas boobu mu ne mu xool gisul benn góor yàlla bu mu sa wax wax mel noonu mu ne loolu moo ko mu dem wéru jël wéru Cheikh Ahmad mu ne ndax loolu ku dul ku yàlla baaxewul ba yegg ci yenn niveau yi mënoo garanti loolu lu tax mooy xamoon na ne dina am ñu koy waxal lu amul xool nga ñoom ñi ñuy wax ne ñun ñoo ahlul bidaati dina la wax yoo xam ne ñoom sos nañ ko ci diine te bokkuloon ci diine beneen bi ci des mooy ñàkk am xam-xam ngeen baal ma mën na tàgg fii xadis ci façon boo xam ne sallallahu alayhi wa moo ci waxee loolu xadis te dinañ ci ñëw léegi ci kanam xam nga dama ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi muy dund alquranul karim bi ñuy jàng ni ñu koy jàngee ni ci téere loolu nee ne yonent bi bu dellu sewaatoon jël mushaf bi jox ko ne lii mooy li yàlla wàccoon ci moom dina wax ne lu tax mu ne dina wax déedéet mooy alquran amuloon tomb amuloon ay maas kenn dajalewu ko woon waaye nag am na yoo xam ne ci biir sàmm alquran la bokk moo tax ñu def ko ni ñu ko def xool nga Seydina Usmaan ibnul Affaan gannaaw bi Omar waxee ak Seydina Aboubacar pour ñu dajale lu ne la ci teg ba a nangu ndax Seydina Aboubacar dafa wax ne lu yonent bi deful dem man du ma ko def Seydina Omar rek di waxtaan ak moom borom kër bu rëy bi mu ne ko nag wallahi xay na ma ne jiw rek moo ciy doon kon moom bi mu ñëw di defaraat alquran di ko dajale waat. am na loo xam ne ci alquran boo koy jàng bu fekkoon ne na mu wàccoon ci yonent bi da danga ko ca fekk ba léegi xool nga boo jàngee suuratul masadi tabbat yada abi lahabi wa tabba wala xam nga ni mu wax ni mu ñëwee tabbat yada abi lahabin wa qad tabba si na Usmaan bi ñu dajale biñ jàngee saar bi bu dee tabbat yada abi lahabin wa qad tabba leen taxaw dindil leen ma xat bi ñu dindi xat bi mu ne jàngaat leen gaa yi jàng tabbat yadaa abii lahabin wa tabba mu ne booboo daal kon moo tax ñu bàyyi ko noonu di ko jàngee noonu beneen bi ci des mooy boo jàngee alqaaria boo ñëwee ko ci kal aynil manfuush li fi nekkoon mooy kas suufi manfuus moo nekkoon foofu mais ci njàng dafay xaw a jafe nga boole ka suufi ne manfuus mu ne amul beneen baat te naa ko man mooy wax mu ne amul beneen baat boo xam ne moo gën a jekk te ñoo bokk maanaam ñu ne ah mu ne wala mu ne te bokk ak suuf ñoo bokk li ñu firi mu ne ko nañu fi dugal ñu dindi al ak suuf bi jël al ilmi dugal ko ci biir continué di ko jàngee moom kon loolu mënoon na wax ne yonent bi defee ko beneen bi ci des mooy. isa nuudiya lis salaati min yawmil jumaa fas'aw ila zikrillah la ñu jàng léegi xam nga lu fi nekkoon famdu waaye ci njàng famdu ila zikrillah fas'aw ila zikrillah moo gën a neex seen Usmaan dindi baat boobu remplacé ko fa famdu bi mu remplacé ko fas'aw te ba léegi maanaam bi boo koy firi du fekkee kon moo tax ma ne ñooñu nag bi fi jógee am na ñeneen ñu ñëwaat defaat bu mel noonu ci alxuraan xool nga am ko asal ak duway yi bokk ci ñi si naa yi waxoon mu mu maas alxuraan ndax dafa ñëw dégg kuy jàng alxuraan bi muy jàng mu wax ne inna allaha bariun mina inna wa rasulihi subhanallah xoolal bariun mina musrikina wa rasulihi kon nag boobu jàngoon ci kàtt nag li ma firi mooy yàlla dañ na ci yéefar si ak Seydina Muhammad yàlla dañ na ci moom Seydina Ali ne lii nag war nañu seet war nañu ko mu ne nañ ko moo jàpp la ñu wax ne inna laa bari'un minal wa rasuluhu yaani allahu bari'un minal musrikin wa rasuluhu bari'un minal musrikin xam nga xam ne ñooñu am na lu ci biir diine ji am na lu ñu def ci shariat islam bi fi ñooñu jógee xool nga sahabatul kiram lépp lu ñu def rek luy defar la waaye du lu yàq ñun nag te dafa shariat tijaani bi ñu yu yàq danaa leen maam Maodo lu ma gis ba jàpp ci ku ci jàpp nekkoo ci tus ndax mu tuuti la ndax duñ cuune يا li البحر للأصداف عندي أصداف بها ضرر أعلم من جلب ku xamul mënul mënoo lu tax mooy wóolu sa bopp ne loo doon wuti jarul ngay dem moo tax ne suñu góor gëlee góor ya Hady Touré bi mu jàngee boo ba mu yàgg boo góor gi bugg a bàyyi moom dafa amoon yéene ne dafa bëgg mu dem bàyyi ko mu dem jàngee xam-xamu mathématique si laa ji maanaam ñu ko jëloon lépp toogal rek boo paree ci yow waaye bi mu paree ci moom def na ci xam-xam mathématique loo xam ni amul benn mathématicien ci Sénégal bu def ko architecte ndax boo demee ci jumaa ba ca Fass ak jumaa ja mu toog amul pied tuma ña fa dem imam Alfousseyni bi ñëwee Sénégal dem na fa mais bokk na ci li ko gën a yéem mooy bidaa bu toll noonu te amul pied kan moo ko tabax ñu ne ko borom bu góor bi ci sànni yi moo ko tabax moo tax li ko def ci mbàkk bi calendrier yi mu doon defar danañ ba léegi montre bi ka defar ci ju kanamu jumaa ji am na benn heure boo xam ne dana ko raté te heure bu jot rek dana la wax te loolu ci mathématique la yaa ko def ko moo tax kon ñett ñi wax liggéeyu tànn mathématicien yi boo liiree mu bind ci mathématique xam nga. tàmbali bi multiplication yooyu moom dafa ko bind wala deux fois un deux wala dafa ko jëlee pour ab jëlee jëlee wala deux fois un deux mu dem Babida Babida Babida mooy deux fois un xool dina mun a amul kenn ku mel ni ñoom ci xam-xam ma dina beneen bi des mooy bu ñu xoolee nag lan mooy bidaa lan mooy bidaa ñun problème ñu amoon ñooñu mooy baatu bidaa ci boppam man dama jàpp ne leeral seen bopp bala moom beneen bi ci des mooy waroon nañ di dem di jàng seen téere ay sëriñ ndax dama ne woon nag mais ñoom dañoo am sëriñ ba mu ndax ñoom mën nañu wax ne boo toppoon si sëriñ ñu wér di tarixa cosaan ba mu ngi jógee ci Muhammad Abdul Wahab Muhammad Abdul Wahab mooy moom ba mu ba mu jógee sëriñ mu ne nii ba mu fa jógee nag ñu ñëw seen gannaaw après mais boo demee ci xam nga ñun nangu nañ ne bidaa am bidaa am la waaye bidaa bu rafet ak bu bu ñaaw bidaa hasana ak bidaa sayya léegi nag ñoom bi ñu jàngee kullu bidaatum dalaala wa kullu dalaalatin fi naar ñoom dañu jël lépp luy bidaa rek réer la te lépp luy réer àjjal safara nga jëm waaye xool nga boo demee ci fatawaay bu taymiya comme ñun nangu nañ bu rafet am na bu bon baax am na wala nga dem ci li ñu tooy bu ñu tuddee al bidaa hasana aslun min usulil tashrii te ki ko bind mooy Isa bun Abdullahi al Umayri moom dafa wax ne al bidaatu bidaataan bidaa mazmuma ak bidaa mahmuda mu ne maa waafaq alkitaab wa sunna fa huwa mahmuud wa maa xaalafa alkitaab wa sunna wa huwa madmuum ne la lépp loo xam ne dafa dañ ko wax boo demee ci alquran ko wala xadis mu ne loolu bidaa boobu ne la bidaa bu mu ne waaye boo ko xoolee mu wuute ci alquran ak sunna ne la loolu bidaa bu ñaaw maam Muhammad Mustafa di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla continuer service bi mission bi yàlla yàlla jëmale kanam waaye suñu góor gi mooy Pape Basir yàlla yàlla may ko du fan ak wér moo góor gi ñu doon ziar léegi dem nañ ci di ko ziar mais xamatuma fi ma nekk ndax wax bi muy wax ndax yu ak ci du marché xel bi mu ngi fekk li te bu muy wax xam nga arab dañoo wax ne inal kalaama la fi fuwaay wa innamaa ju'ila al-insaanu alaa fuwaadihi xol li ci xolam rek lay wax kon nag yàlla yàlla bàyyi leen ci kanam kanam bu ko defee yooyu dañ doon wax ndax dañ doon jàngat rek ndax ñi nga xam ne ñooy borom daara yaa ngi fi ko man daal di ko wax حامد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الرب الصمد الواحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه في الأميين رسولا وجعله للنبيين مقبولا وبما وعد من ثواب المطيعين كفيلا صلى الله عليه وعلى آله بكرة وأصيلا وسلم تسليما شاملا عميما أيها الناس أوصيكم بتقوى الله العظيم الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وما قابلتم ذلك إلا بالمعاصي الهوالك أتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم حتى زرتم المقابر وتعاميتم كما تصاممتم عن العبر والزواجر بل وعدكم الله في هذه الدار بالخلود فنسيتم اليوم المشهود فكيف الحال إذا نزل الضيف المجتاح وما له قرا إلا الأرواح الله الله عباد الله واعلموا أنه ليس بهذا الجلد الرقيق صبر على الحريق انظروا إلى جزاعكم من الشوكة والرمضاء سبحان من له ولا عليه القضاء wa antum abnaau sabil fa udintum kulla yawmin birrahil fatlubu xayra zaad fatlubu xayra zaad fatlubu xayra zaad alaa inna xayra zaadi taqwa ilaahina wa laa taxsha xayra allahi fa huwa xasibu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا زهزحنا الله وإياكم عن دار البوار وأحلنا وإياكم دار القرار وحمانا وإياكم عن حطام هذه الدار سبحانه هو الله الواهد القهار إن أصدق ما نطق به اللسان kalaamu lmaliki ddayaan kullu nafsin daa'iqatu lmawt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuhziha ani nnaar wa udxila aljannata faqad faaz baaraka allahu lana wa lakum fi dikri alxakim wa astaghfiru allaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimin الحمد لله الذي لا يوصف غيره بالكمال ولا بالجلال والجمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه للعالمين ليظهر فضله وعدله شهاده من لم ينس الشهاده القبليه فكان من جملة الحائزين من ربهم المزية صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة وصحابته الأنجم الزاهرة صلاة تتعاقب تعاقب الدهور يديم بها علينا ستره مولانا النصير أيها الناس إياكم والتخالف واعتصموا بحبل الله والتآلف والتخالف ما هلك من قبلكم إلا به وبه يعضنا الدهر بنا به وفي الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا wala fi xayri dalika biddiini taxaqaqu wa subulu lcaafiyati alyawma la tuslabu illa bilmaqaal wala yazaalu yukadibuna lisaanu lxaal fama lana illa cuyuunun naadiratun la tubasir wa quluubun qaasiyatun la tufakkir fama ashadda samama aladan منه الرهائن قد غلقت عند الشيطان فاتخذوه عدوا كما قال جل وعلا علوا نجانا الله وإياكم من كيده آمين وعمنا وسائر المسلمين بخيره ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم عم بالصلاح والتوفيق رعايا المسلمين ورعاتهم وأمراءهم وولاتهم وحكامهم وقضاتهم وعلماءهم وهداتهم وكثر أنصارهم وارحم حوزتهم وأعل منارهم وأمن سبلهم وأرخص أسعارهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأن الشفاعة من صلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأن في القيامة وجه من أثنى عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يغفر الله لنا ولكم بسم الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح السلام عليكم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 أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور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 وقدره ومقداره العظيم اللهم ربنا تقبل منا ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة عبيدك ورسولك الكريم الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن علاوة وبكل كلمة كرامة ولكل آية سعادة ولكل سورة سلامة ولكل جزء الحافظين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيد الوجود وقبلة الشهود مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وسعابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ويا أرواح جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأولادهم وأزواجهم رضي الله عنهم وروح القطب المكتوم والبرزق المختوم الله عنه وأولاده وأزواجه وروح سيدنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الحاج مالك بن عثمان الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله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 Seba. bisimilah di mbokk yi man maa ngi leen di nuyu man maa ngi tudd bu Diop maa ngi nekk hôpital bu Tivaouane donc ñu ñoo ñëwoon tey ci journée bu njaarne bi doon ci def consultation médicale gratuite su le tutelle de notre directeur euh, Abdallah Gueye donc ñëw nañ indi nañ fi ay médicaments def consultation médicale gratuite donc consulter nañ malades yi on a vu plus de presque 200 malades euh, consulter nañ leen jox leen ay médicaments gratuitement selon les disponibilités si euh, donc ñu ngi rafetlu journée bi donc المصطفى جل خير وروض عند عند salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ndax ci bi salaay salaam ñu eh, delluwaat rek santaat buur bi tabaraka wa taala ci xéewal gi ñu defalet indi ñu ci pàkk bi nga xam ni suñu maamu leer ba maam Cheikhul Hadji Malick moom la yàlla wërsëgaloon muy dox ba daagu fi di wut lum fi dunde fekk fi maam Kumba Amar yàlla dañu wërsëgal ñuy dund ba fekke loola kon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla bu nekk suñu mujj daje la boo xam ne nii place su ijaaba la la boo xam ne nii Cheikhul Hadji Malick ki la defaree monde bi ki la defaree Afrique ki la defaree Moukhaddamatoul Tidiane yëpp boo booba téeméeri ñeenti lu te booba njaboot yëpp moo leen dundal di leen jàngal yor boppam di ànd ak ñoom fii la taale naasiril xaq bil xaq fii la defaree taysir fii la defaree yu bëree maa du fàtteeg bokkam ma ma ñu ngi fàtteeg mbokk yi lam daroon ñoom ñëpp fii la leen taale moom Rawaan Ngom tabaraka moom Pedre Diop ca Dakar ak mag ñooñu alaji moo fujje si ci dëkk bii la leen taale defar leen nekk ay kàngam yoo xam ni fu dem rek mën a taalaate fi la nekkoon ci maam Goumba Amar fii ko Serigne fekkoon keroog bi mu fekkee Serigne Touba daf ni ko waaw Seexul Xaaji Malick dama lay laaj ku bëgg àgg ci yàlla wan yoon ngay jaar mu daal di yëkkati benn téere boo xam ne Cheikh Omar Fouti moo ko liggéey muy rima mu jox ko bi mu ko liiree ba pare def ni ko kat wa man yurid nayla asrarin wa mahrifatin fala yufaarix rimaa sayxuna sayxana omara ku bëgg a àgg ca ku bëgg a am téer ku bëgg a am ay mbóot bul tëqale ko téere Cheikh Omar bi ba mu pareet nag mu ni nag bis ni ki tey xaalis bu ma amoon man Cheikh Ahmad Bamba teg naa la si suuf yëkkati naa Alaaji Malik ca kaw waaw wa ma taxastu xalilan kunta aarifahu ilaa jaalta maqaaman fawqa bi rutubi loolu nag moo ñu indi fii ci barab bi ñi fi dagaan leer di fi dagaan yiw dundalaat béréb bi ba mu delluwaat ca balluwaay ya lu fi ñaan lu fi waay ñaan yàlla ko yàlla nangu aajo bu yàlla indi bu fi nit indi yàlla na ko yàlla faj jàngoro bu fi nit indi ko yàlla faj ñu ñëw fi at yu bare bare bari suñu way jur suñu baay suñu wasila Hadj Mohamed Basir Niang yàlla gën ñu ko fi bàyyi bu ñuy gunge di ñu gunge di ñu gunge ba yàlla defal ko ñaanam maamam bu ñu jaayam nga xamum raqaafin wa noonin asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu daal la ñu amoon ci kàddu tabarakallahu ndokk bi ñëwee fekk fi suñu mag bi di suñu imaam di suñu lépp muy xaaj moxtaar ñang bi nga xam ni mooy suñu bopp lu mënti doon ndaje muñ ko fekk suñu kàddu jeex na fa tabarakallahu nag yàlla dogal alquran wax ni man lam yaskuri naata lam yaskuri la ku dul sant ñi la yàlla booleel ci ay nit ñu jëflanteeg yow doo sant yàlla mii la booleeg moom yàlla dogal nag soxna Mariane ku ne na turam ku xam na ay jëfam tabaarakallaahu te nag ñi yàlla yi lim naan wa amma maa yanfa'un naasa fa yamkutu fil ardi yàlla nañu la ci yàlla booleel ku amal nit ñi mbaax yàlla bàyyil la fi tabaarakallaahu sa mbaax moon nga ko yeme ci sëñ Aliou rek moon nga ko yeme ci Baye Laaj Basir rek moon nga ko yeme ci mag ña rek waaye yaa ngi topp rek di xeeñtu di xeeñtu di xeeñtu di xeeñtu ba ilaa yawminaa haazaa bàyyiwuloo ba ci bis bi nga xam ni yàlla da ko ne suñu mag Mansour da ko yàlla jagleel muy bisam ngeen ànd ceeg moom bu jotee ngeen togg ca Ndakaaru jël seen i teraanga def seen déplacement ci temps sang lépp ngeen def ko ñëw fekk fi njaar na ci barab bi nga xam ni fi la Seexul Haaji Malick defaree woon monde bi fi la defaree woon adduna fi la defaree Afrique fi la sampe kàngami tarixa bi yëpp yëpp yëpp fi la sampe woon mu xaddam yi nga xam ne ni moom la tasaare woon ci Afrique ci di dox di dox di dox di dox di dox ba tombanteeg wax ba mu waxoon rek laxat rufiat raayaatu uslubu sayxina wa man saa fal yumin wa man saa ankara dara boobu jóg na ba pare kum neex ak kum naqari kum neex nga gëm kum naqari nag nga bañ a gëm loolu nag sëriñ Mansour nag nee na ñu sant la gërëm la ñaanal la yàlla ci taxawaay bi ci jàppale gi ci dimbale gi ci sagoo gi ci wéttal gi ci li nga xam ne yaa ngi koy def démb ba tey bàyyiwuloo mu ne ñu ñaanal la yàlla wax la fépp bu fépp nit fépp ceeb bu nit lekk fii rek yal na yàlla defal ko yiw ci aljana yàlla defal ko fajub aajo ci zahiran ci baatin waxoon na lu ëpp loolu ndax ku ne xam na ni Mansour euh, rappeur la waaw waxkat la yal na yàlla bu ko suñu làmmiñ jiitu incha allah ko jiitu waaye yàlla defal na ko loolu na mu déggee olof na mu fasaaye ñun meluñ noonu waaye daal ngi sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yow ak ñi ñi lay jàppale yow ak ñi ngay àndal yow ak ña koy togg yow ña koy dugg macha allah daal la wax daal ah mbay ak ñi ma booleel ñi waxoon na ëpp loolu waaye sama làmmiñ moo gàtt sama sëriñ dafa teew sa sëriñ bu teewee boo waroon résider leçon bi moo jaar da nga patiné muy sëñ Maxtaar loolu daal Mansour moo ne woon ñu ñëw fii ci soxna si sant ko gërëm ko kontaan nañ si waaw waaw te yàlla nag nee na lu ngeen dépensé ci yoonu yàlla yàlla yàlla wutal leen ko nga suratu Baqara yàlla nga ci wax yaa ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fii wala xullatun wala safaatun wal kafiruna humu salimun nee na ku xam li ma xam dépensel bi sa ngi ñëw doo doo mën a leb doo am ku la abal doo am ku la garanti la nga defoon rek moom moo lay garanti kon nag sa dépense yi ngay jiital te nag bagage accompagné am na fret am na mais nag fret moo gën a accompagné kon li ngeen accompagné yëpp baax na mais fret ba nag moo jiit te mooy yàlla na yàlla fay ko Moxtaar ah kaddu gaa ngi noonu xanaa loo ciy teg nga teg ko ci ñaan ñu delluwaat ci yeneen euh, dal yi comme. xanaa ñaan rek maam si maam si santaane. li li li wax balax ko ahsanta jotoon nga rafetal nga. alhamdulilah. yal yàlla yokk yiw yi. waaw dool di leen a yàggal ci suñu kanam. waaw ñu rek ngeen ñu di leen sagoo. ñun fu ngeen nekk rek daanaka. yoo xam ne ñàkk fu la weesuwul baram nga am fa mag am fa rek am waaw ñii sama rek lañ ki sama baay lañ ko tuddee waaw ki sama baay lañ ko tuddee mu taw tuddee ma kon fu ñu dajee rek uh-huh. man ma naa ne amatuma fa def baal ma sa waaw xam ne daal man am naa sens waaw ñoom ñi nga xam ne man maay seen mag ñoom ñoo amul sens am mag ju mat la ma war doon waaye man am naa ay sens ay rek yàlla na yàlla ko sens wa nag waaye soxna si amiin wax nii Eh, yàlla yàlla bu ngeen ci gis seen bopp. waaw boobu mooy sens bi. ndax suñu tëkkalee junni ju maag benn ti bu benn. waaw mm-hmm. ah, yàlla xëy si nga toog ay ay saako wala ay bërigo. Mm-hmm. yor ko ay mbooloo yu yu bare bare bari. Mm-hmm. ñu jëfandikoo ko. kooku yàlla na yàlla dimbali ba yàlla rek tax. ndax sens bi nag mooy loolu. ndax boo defee pour nit. bu dee jërëjëf. jeex na. mu ne amul ci fay dara. jërëjëf nag neex na waaye jazakallahu moo gën a neex maanaam xam na ni moo mënul laa fay mu ne ki nu boole bind xiira ci nga def lu baax yàlla na ba leen fayal kon yéen jazakumullahu ana xayra jazaa yàlla yàlla fayal nu leen te yéen incha taala li fay yeneen koy def du ngeen ko rëccu waaye nag li ma leen di dénk daal mooy na yàlla tax suñu suñu kilifa sa yàlla yu ñeng loo mas a wax mu na yàlla tax waaw yàlla rek ko ñoroo li fi defar lépp ginnaaw yàlla it jox yàlla bopp moo ba mu jeex rek moo ko may ko nag moom it yaaga naa ni da mucc si def mbóorante gi caaxaan kon yàlla yàlla dool leen jàpp yàlla yàlla taxawu leen ñi tam ñaa ngeen li ma leen ñaanal la ndax man kat am naa saa dematuma fenn defatuma waxatuma dara mooy def ñooy dem fu ñu war a wax ñoo ma koy waxal ma toog ci kër ga rek man maa ngi ci seen loxo te may leen fan yu gudd yu ànd ak yaram nag waaw yoo gën a a leen yàlla defee yàlla ko jiitale. nga baal ma fa tabaarakallaahu la ne ne yàlla tax. lii moom ku ko gisee nii rek war ngaa xam ne yàlla tax. Ah, ndax xoole fii mu ne Pape Mansour dama noon jàkka fii ci jàkka ji nen ma ko dugalal foofu ah. waaye moom ci boppam li yàlla taxe mooy dañ ko defe woon fii daaw te ñoo ko bayaleen sunu bopp itam teg fi basa gi ci kaw ñax mi ren ji yàlla jóge ca dëkk ba tey bañaŋ ñëw fii bay ko ni ki ñëwoon daaw de yàlla na fi ñëwaat ren ñaan googee nangu nag dégg dafa am nañ dem gé bay place Marianne bi. waaw dégg nga dégg nga ma la wax dégg garab bi ñuy bay fii. léegi nag fii hasard am dafa seetlu géewu. hasard ah. am nga lu tax moo tax ñu ñëw fii waaye bu bëgg nag fangaaral kon fee lan koy def waaye ak nëbboom moo tax te nag yemul ci réew mi de yemul ci réew mi ki nga xam ne ne njabootu Seydi Hadji Malick moom laa ci séddoo man mooy Alaaji Abib ci dafay am dafay am bisu boppam bu nu ko jagleel ca Banjul dafay dem yóbbu fa teraanga ju bari boole koog nii nag bu ko kenn xam. waaw loo man ren yàlla na nga man déwén lu ko ci barke yonent bi yaa koo àndal ak koo xam. ñun yàlla dafa ne dafa tudd bu toll lépp suñu kuréel dafa doon ko organisé. xaj maa bu ne jàng leen Fatiha am na ñu wax ni Seex Alxaaji Abdou nee na nañ ci dolli Fàlla ak Naas. ma ne bu ko bu ko tudd woon dama ko ci doon xaañ maay dafa wax bind yem ca waaye nag xaggaasi moom lu ne noonu la rek ànd ci kon loolu ñëpp nañ ànd jàng Faatiha jàng salaatu Faatiha teg ci ayatul kursi ak xul wala ak falax ak naas teg ñaani yàlla mu yokk seen tuddoo yokk seen wér waaye tam ñun tam ñu yokk suñu tuddoo yokk suñu wér ñu bokk di fi daje rek comme soobu yàlla te luñ fi rek mbaa ñu wax ko fi rek yàlla na yàlla kese te yàlla ko yàlla na ko tam jaay rasulillahi sëñ Mansour ñun amal nañu ko tan ndax ku la tobbil fii dëgg la parce que sëñ Malick ki wax ne fi la taale lim taal lépp def na fi juróom-ñaari at na fi juróomi téeméeri mu xaddamam nanga mu xaddam boo dégg ñu ko dégg ci tudd ci réew fii la jaara moom doo ko fi lim koy jox kon nag fi ku fi rek mhm. te it wallazina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin bi imaanihim kaamilin alxaqnaa bi imaanina naaxisin suñu suñu suñu ngëm yu doy di suñu ngëm maam yi mbad yooyu ci lañ koy teg lépp complété baax waaw nan am pas-pas rek amiin amiin yaa rabbal aalamiin yaa rabbal aalamiin amiin jërëjëf kon bu dee lay fi Allah سبقنا سراق العقل وعبد الهادي نصرة المستقم وعلى عليه حق قدره ومن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقدر لما سبق نصر العقل والهادي نصرة المستقم وعلى عليه حق قدره ومن اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والقتل لما سبق نزل عقل الحميد وعلى الهادي نصرة المستقيم وعلى عليه حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على رجائي وتوفيق الإله وسيلتي إلهي بحب العارفين إمامنا رجائي وتوفيق الإله وسيلتي إلهي بحب العارفين إمامنا رجائي وتوفيق الإله وسيلتي ختام نظام للولاية جملة به نرتدي الغفران من كل زلة به نرتدي فتح المغالق كلها بها وقايتنا الرجال من كل شدة وكم أشتكي عند الإله زيارة زوايا هناك العنان بخطبي هنا أبي وهب بالنداء وخلجوات فالدهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده فإن لم أنلها يا مرارة عيشتي وعدت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داعا باضطرار وذلة إلهي فاعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمه هدى وشيخه كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيته مع الآل والأسهال ما ذر صادق وما قال داعي يا إلهي لشدتي يا الله عن نجزيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضيه يا الله الحاج مالك مالك بما يرضيه الله الحاج مالك بما يرضيه الله بلغ له كل ما نولق رقيه على مراتب أهل الله الله وقويت روحه على إفاضة أنوار على صحبه يا الله يا الله واستعملا روحه على إفاضة أنوار على صحبه يا الله يا الله ووفقا أهله بمهد جودك أقول يا ربنا يا الله يا الله لما يفيد عليه من معارفه ومن مواهبه يا الله يا الله واغفر له ولكل المسلمين المسلمين وفي هذا الطريق أمنا ربي الله هذا الطريق أمتنا ربي الله هذا الطريق أمتنا ربي الله هذا الطريق أمتنا ربي الله هذا الطريق أمتنا ربي الله نحشرا ربي أيا معبود في زمرة الشيخ أيا ولول إي نحشرا ربي أيا معبود في زمرة الشيخ أيا ودود إي نحشرا ربي أيا معبود في زمرة الشيخ أيا ودود بجاه الله عليه سلم ثم على آله وصحبه وسلم ربي الله اللهم أنت مرتبها بدعائك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 صلاة تفلح تفتح لنا بها أبواب الرضا والخيرات وتغلق بها عنا أبواب الشر والمضرة وتكون لنا بها وليا ونصيرا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 اغفر وارحم وانت خير الراحمين صدق الله العظيم. يا si yoo taxawoon jéego yi melax mii doon na yitte jaay bu sax caram ya dootul sana te si xaaji Maalik yoroon lu dul sa téere bi kurus gi ak sa bopp bi yi nga xaroo sa jàng bi yi nga saxal ba ñëpp fa salli yéen sëñ Moustapha soxna Koumba Diop bu baax la bu bu hôpital la Dante lu nit ku baax di dugg rek moom tey sant soxna Mariane bu baax ak ñi mu bokkal yi ñëpp bisimilah alhamdulilah amiin ki ñuy jox nag doomu Seex Alxaaji Basir bu soxna Farsi bu Seex Alxaaji Malick juddoo ci daara ji nekk ci daara ji ba léegi tabaarakallahu yàlla na ko yàlla saxal ci daara ji ni ci saxale woon maamam Seex Alxaaji Malick te ci xàqam yi nga xam ni war na ci sëriñam bu ma nee dara donte su paree dañ ko koy mu def ko bu dee way bu dee aw tàgg mu jéem ko loolu nitu yàlla yi nee nañu ab taalibe loolu xàq yooyu war nañ ko ci digganteem ak sëriñam loolu mooy ci dugal ak ndigalu sunu mag yi kon dañ koy jàng rek donte benn bëy lañ ciy fii li ci des nag ñu bàyyi kilifa yi ñii ni toog ñu àggale jotaay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين المكروه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف الرؤوف المعبود والصلاة والسلام على الرسول المبعوث المحمود سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد المختار المردود في اليوم المشهود وعلى آله وأصحابه الموفين بالذمة والعهود ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود فهذه قصيدة كاملية تأتية من العبد الطالب الفقير الضعيف إلى جده السيد البحر الزاكر الحاج هادي ترك رضي الله تعالى عنه قائلا أقريحتي فلتخرجي بقصيدتي نحوهما من هاد بحر الحكمة جودي بما تزري اللآلي والجواهر نحو حبر عارف ذي الرتبة أكرم بهاد قد هدى بعد اهتداء إن زمرة يا قوم بعد زمرة أكرم ببحر ساحر قد كان صاح حين بحر شرع قومنا وحقيقته قل إنه تلميذ مالك دهره وحفيد قاض بين أهل خصومته وإذا سئلت بهادنا المنطوق قل هو نجم شمس في التقى والرفعة وإذا سئلت به فقل هو حافظ ذكر الإله وقد طه بغيتي وإذا سئلت به فقل هو صادق من لا يزن بتهمة وبريبة wa iza su'ilta bihi fa qul huwa zul maza yaa naafi'ul funal mira bil ummati wa iza su'ilta bihi fa qul huwa zakirun wa muqaddamun wa muqaddimun bi tariqati huwa qaari'un huwa muqri'un huwa aalimun wa muallimun huwa qudwatun min qudwati huwa shaa'irun wa mu'allifun huwa jaami'un shatta al-funuuni wa naabihun zun nuhyati هو ذو الوقار مؤدب ومهذب هو ذو السكينة والعلا والهيبة هو زاهد متواضع متبرئ من شبهة من شبهة ومخالف للسنة هو أخرج الحفاظ والعلماء والصلحاء معجب قومه بالخبرة قد عامل أشياخ والقرباء والقرباء قرناء فيه جد بدون مرية قد حج معجب أهل مكة زائرا خير البرية مصطفى بمدينة أيامه وشهوره أعوامه بعبادة أحيا بدون فترة هذه الخصال ذو خصال شيء كامل بر شجاع عز سلام وهمة إطنابنا في حقه لمقامه أهل البلاء غدس الحياة ذا الفتنة لكن نزل إطناب من وافى الذي أحازه هذه الورى للجنة ولذا سكت وعن المقال التي داعية رب الأنا لقبوله بهديتي يا رب وار دع الاتجاه لإمامنا ولكل من يدعى لنا بوسيلتي ثم الصلاة مع السلام على الحبيب بالمصطفى المختار في العلة والآل والأصحاب ما قال طالب أقرحتي فلتخرجي بقصيدتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. comme ni ñu waxee woon léegi rek benn bayit lañ ciy firi wax xasida maam bi joxe kàddu incha allahu ci sunu maam jooju maam Haadi Touré radiyallahu taala anhu benn bayit rek lañ ciy firi te bayit biñ ciy firi mooy maam Haadi géej la woon boo géej bu duusu géej nag buñ ko xasee ba bu dee borom dégg bu yaatu mën na ni géej ci ñaxam géej du nekk mën na cee génne waaye bi mu nekkee géej tamit dafa nekk tefesu beneen géej. te tefesu géej bi mu nekk mooy Seydi Xaaji Maalik radiyallaahu taala anhu ndax maam Xalifa dafa wayoon ni Seydi Xaaji Maalik la géej la boo xamante ni nii tefes gi doy na nit ñi. ma nag man xam naa ci beneen dégg-dégg. xay na sob la Seydi Xaaji Maalik bu dee géej ay tefesam maam xaaji bokk na ci tefes Seydi Xaaji Maalik tefes boobu rek kenn mënu koo jàngal bu ko mën a def pour Maalik boobu bëri rek lañ ciy firi dugg maam Abdu ni nga xam ne ni ko defee muy al-Cheikh al-Xaaji Abdul Aziz radiyallahu anhu joxe kàddu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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين العجيب وبعد فهذه قصيدة بسيطية بارية من العبد الضعيف المتعلم المذنب الكريم محمد الأمين بن سيد شيخ محمد البشير الذي صدره رحيم إلى جانب فريد عصره ووحيد دهره الماجد المحبوب سيدنا وشيخنا الحاج عبد العزيز العارف النحلي الطبيب مقيدة بحروف اسمه الكريم المرغوب السيد الشيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه قائلا بعون الله المنان الكريم المتم القريب إني أوجه مدحي نحو ذي الرتب عبد العزيز فريد العصر ذي الأدب لملا وقد حاز ما قد حاز في صغر من المواهب والأنوار والحسب سأل الأنام بتقوى الله خالقنا وحب أحمد خير العذب والعرب سياسة حازها وإنه علم ومؤثر وقت إنفاق به السبب يمينه لذوي الحاجات منفقة ما ليس تشعره يسرى بلا كريم يعطي العدو بما يعطي الحبيب مواصلا لقاطعه قل من شغبه دامت فضائله درت فواضله قد طاب معتده منه المريم أقام حقا زوايا في البلاد مقدما رجالا ذوي الإنصاف والنسب ليل الجنان خفيف الظل سيدنا سهل سجايا طبيب القلب ذي الوسط شيخ يدل على شرع الله وسنة الرسول بلا خوف ولا كرم شمس زمان وبدر لشكوك ونجم من للهداية نافي الطير والعقل yaqumu fi kulli amrin qad yuhibbu bihi ilahu fi dinihi ma shiddati talabi xabat masabihu man qad asaruhu wa in lahu imamu imamun kulli sinni wa bi akrim fa akrim bihi baxin baxin limana zin aarifin naafiin min kulli muqtarib lahu lxasaisu والسادات قد شهدوا له المحاسن ما عدت لذي الطلب حمدا لمن خصنا هذا الإمام مبينا جميع الذي قد جاء في الكتب أعطاه مولاه ما أعطاه من كرم مع العناية والإصلاح والرحم دم الحياة وقور ناصح وصبور بل صفوح ومعطي الناس بالنشر jabat xayaatu faridin asri qurbatina maa yujibu alqawma xaqan kulla ma alima abdul azizi fa abdun aabidun mutabattilun maa rahabi almaqlubi warrahabi barrun xalimun mufidu lxalqi jumlatihim wala tarahu li nafsin saaxiba alxadari durrun yatimun wa cheikhun daafiun alanan عن الشريعة زاجد وضال صديق أفنى الحياة بما يحب خالقنا المعبود بالحق دون العجب واللعب لا غرو إذ هو نجل قطب مالكنا شيخ الشيوخ أبي المقصود ذي القرن على جميع الورى لما مضى قلق حسنا بدمع على الخدود مرسكز زين سنة خير الخلق شافعنا وقد حماها عن الإفساد والخلل العطاء يبكي لخشية رب ذاك ديدنه وخلقه قومنا أحلى من الضرب أو وخلقه قومنا أحلى من العنب زين الورى وسراج الدين كهفهم حصن حصين لنا مع كل منتسب سقى وأطعم قد كسى قضى علنا ظمآن جوعان عاريا من الأرب هو الإمام الذي جمت مناقبه هو المجدد مالكي لمحرم رفع شقوقا وبالاتباع نبهقا ربى ورقى رجال العجم والعرب ضم المساكين والايتام والفقراء لنفسه دون اظهار من التعب يا من يريد نجاة فاتبع اثر الشيخ الصميم الذي ابهى من الذهب. beneen seede bi maam Thierno Saïdou Nourou Tall moo ko seede nee na bu ëllëgee ka ñuy tàggal ca àllaaxira mooy. maam Abdou Aziz ndax bëggul ku dugg safara kooku moo ñuy tardé. Sëriñ Abdou Sow tur dafay mel ne la. waaw sa jëm ma ji du sape danga saf xorom. سيد سبيل نغاز فخرا وهو سجمد الرسالة yàlla defar na ko sutura mboolem taalibe yi ñuy joxe ci hadiya mën na ko génne moom ci poosam waaye li mu yëg ci maam Abdou nee na mooy gis na ni maam Abdou tànkam teg na ko ci sunna loolu moo tax muy kër këri ci ginnaaw loolu nag borom mu ñëtul mu bi muy tàgg Cheikh Ahmad ba egsi ci loolu dafa wax ni min zalika ittibaahu li sunna wa hiya lada rijaali xayru minna Cheikh Tidiane Chérif lim nañu ay karaamaam waaye borom mu yëtul mu di nee na yi bi ci gën mooy teg bi Cheikh Tidiane Chérif tegoon tànkam ci sunna boobu nag mooy karaama bi gën a dafa am ñaari karaama karaama boo xamante nit ki ba ci jaww fa comme ni avion yeeg picc